Cour des comptes démb ba léegi ma nga ministère gi ngàlloo wàllum tàggat yaram fii ci Sénégal xaalis bi jëmoon ci coupe du monde football biñ weesu la ñuy càmbar onze milliards la ñu dépensé woon ci euh, quatorze milliards yi ñu ne moom la ñu génne woon ba final Babacar Fall. laaj bi njëkk bi sampe mooy xaalis bi ñu yóbbu ci coupe du monde ba ca Qatar ci xibaar yoo xam ne jot nañ ko lu ëpp onze milliards maanaam onze milliards yu tegal neuf cent trente cinq millions dépensé nañ ko ci budget boo xam ne quatorze milliards la quatorze milliards yoo xam ni ca final ba la ñu waroon yóbbu waaye huitième de finale la Sénégal yem te dépensé nañ onze milliards ak lu tegal boo jëlee ñaari match amical yi nga xam ni Sénégal football na kook Bolivie ak Iran def nañ ci deux milliards

keroog bi muy doo ko yegg si woto bi mu ut dañ ko loué diggante bi mu koy loué ak bi muy jóge ci ministère bi facture ba yegg na deux cent millions francs CFA gën kaa tuuti bureau ministre bi nag bi mu yegg itam war a soppi sees yaag fauteuil yaag ñoom seen loole ci suñu xibaar def nañ ci soixante millions bi Sénégal demee Qatar nag ci coupe du monde ba ki nga xam ne mooy daaju ministère bi moom jële ne fii Sénégal juróom fukki nit ak benn fayal leen avion hôtel ak billet stade ci xaalisu boppam Babacar